nag benn wasin bu bees la dafa sonn jaaxle mu dem ci post de santé ba pour ñu jàppale ko ci nu muy nàmpalee ak nu muy ñaqee doomam maa ngi door a wasin te dafa mel ni aw ma soow duma nelaw guddi te dama sonn nee nañ ma dem ci post de santé ba pour ñu dimbali ma waaw wax nañ dëgg après euh, boo boo wasinee ba pare c'est normal nga xam nga danga sonn te triste ndax accouchement bi day metti ci jigéen ñi te bu dee yow kese yaa nekk te benn xale yombul naa la jël benn rendez-vous nga mën taa waxtaan sage-femme yi. waaye man dégguma bu baax italien. loolu nekkul problème boo eggee di nga fa fekk koo xam ne dina la jàppale te jox la information yépp ci wolof. damaa war a ñëw man rek wala maag xale bi. bu la neexee nga ànd ak sa doom ji nga xam ne mënunoo xool ñu nàmpal bi di dem euh, ñu nàmpal bi di dem euh, ci rendez-vous bu dina dinañ la jox yeneen information mën nañ la jox rendez-vous ci psychologue mbaa ñeneen ñoo xam ne mën nañ la jàppale. ñaata laa war a fay. bu jaaxle ci loolu service yépp doo ci fay dara dono gratuite. Euh, dañ maa war a visite bu ma wasinee ba pare. waaw mën na noo programmer benn visite ak gynécologue bi nga xam ne dalay contrôler te ci euh, occasion boobu dina la wax lu dina la wax lu aar sa bopp ci biir poste de santé mën naa dinga fa fekk ku la mën a jàppale te dimbali bu dee dangaa amee jafe-jafe bu dee dangaa euh, am lu la metti mbaa euh, lu lu lu lay lu lay menace mën na loo adressé ci eh, psychologue assistance sociale mbaa ci benn avocat. jëf ci information yi. ñoo bokk.